y no caí bëgg rek. ah mu bëree nag. nice. wax. loo bëree wax rek. day ah. Jacob ah, daan na léegi kan moo ci ah kan moo ci des. Babacar Bale yàlla ko yàlla may ndam. Babacar ah. day bëree. waaw yàlla ko yàlla may ndam. mais tey nan nga gisee stade bi. stade bi. waaw. feesal nañ ko rek. ah mu ngi fi ma ñëw. reprendre na entraînement. waaw. ah. looy wax sénégalais yi lay seetaan tey ci bis bi nga xamante ne tey seen mag da koy bëre muy Eumeu Sène la ñaanal. maa ngi ñaanal ndam rek. Ah. genre félicitation rek. ah am neexal nañu. ati ah, ñu nekk ci sama xol ah, waaw. Jacob Baldé. diggi géew bi arbitre baa ngi leen di wax li bañ ak li nangu mbokk yi Jacob Baldé moo ñëwaat ginnaaw Mathieu Pereira moo ñëwaat kanam mi ngi consulter lu xew lu xew nee leen xaar am na lu ñuy réclamer kii moo ñu wan ginnaaw moo ñu wan kanam Jacob moo ñu wan ginnaaw ñu ngi lewtoo ñoom ñaar ndeysaan Mathia Pereira Jacob Baldé mbokk yi Mathia ci victoire la jóge Jacob mbokk yi ndeysaan jóge ci ki nga xamante ni ndeysaan fii ci arène nationale ndeysaan gannaaw ba mu bëree combat ak ki nga xamante ni moom mooy ndigal mbokk yi waaye ñaari xale ñi ngi Jacob ndeysaan ak Mathieu ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo ñoom ñaar ndeysaan Jacob Mathieu Pereira ndeysaan Jacob Mathieu Pereira ñi ngi lewtoo arbitre nee leen ñoo ci digg géew bi arbitre sifflé waat na Mathia Pereira Jacob Baldé Mathia mbokk yi moo ñu woon kanam Jacob moo ñu woon ginnaaw Jacob Mathia arrière na door na Jacob door na mais dara dalul jël na tànk bi dajoo nañ ba tey dara xewul Mathia jàpp na Mathia Pereira Jacob Baldé Mathia Jacob Baldé ah. Jacob ni ngay bëree baaxul Mathia Pereira champion la caxabal ñorul Mathia Jacob Jacob jàpp na caxabal bi yaa ngi tenté deux fois réussirul Mathia euh, ba Jacob Mathia mi ngi na teg caxabal ba waaw waaw waay Mathia mi am na doole de luy xew Mathia Jacob Baldé Mathia Jacob Baldé waaw waaw oh waaw waaw riñaar na riñaar na ko Jacob Baldé daan na Mathieu Preira Jacob Baldé daan na ko Jacob Baldé daan na ma waa Pikine Jacob Baldé daan na Mathieu Preira oh ndeysaan xoolal ma Zil Baldé nee na du wax Zil nee du wax naan xolama waa kër Falaye Baldé yi xolama waa kër Falaye Baldé yi booba ngi noonu jéem a seen la jëm jéem a seen la jëm moom Jacob Jacob Baldé bokki jàmbar jàmbar yaay jàmbar yaay ndaanaan di gërëm waa Pikine bu baax a baax ndax am na loo xamante ni mooy loolu ama ñu koy ñaanal ama ñu koy ñaanal bu baax baax gis ngeen wax Pikine nu ñu taxawee si combat bi di ñaanal Boy Niang ndam Pikine rek moo ñu ñor ama Boy Niang ku jël roi bi mérité na maa ngi may Alaaji Mbay sama jabar tamit maa ngi koy may victoire bi.